lu bari ci ay collégiens naka noonu ay lycéens ñoom ñoo daldi wutali ay makaanu 7TV jamono ji nga xam ne mu ngi leen waroon fekk ñuy jàng ndongo yi daldi beddi classe yi ngir ñëw fi nag daldi fësal seen naqar. tey li fi indi naqar la muy suñu professeur bi nga xamante ni mooy suñu prof philo tudd monsieur Guèye ñi koy wax Daouda Guèye lañ arrêté ci manifestation yi nga xamante ni moo weesu. te loolu élèves yëpp ko déploré moo tax tey ñu génn wane si mécontentement. monsieur Daouda Guèye di professeur philosophie dañu ko teg loxo ci manifestation yi wees yi ndongo yi nag taxaw temm ngir ñu libéré ko. ñuy ko si kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk dëkk bi ñoom ñu dimbali ñu libéré ñu suñ professeur boobee mu am peexte su ko defee ñu dem waa élèves yi mën a def suñu tranquillement loolu moo nekk suñu suñu. ginnaaw jàngalekat yi nga xam ne jàppal nañu tànk seeni collègues ay ndongo yu jóge ci juróomi école ñoom ñoo fi dajaloo ñoom it di sàkku ngir ñu libéré seen professeur